الحمد لله رب العالمين نيغي سانت يالا بو باخ دي دال بي سيرا وات دي موم ريك موي يالا موم ريك موي بور موم ريك موي بروم موم ريك مو بيند موم ريك مو ساج امول كين دو بوخ امول تورغي دارا دو مان مان ساج ساج مو ليپ موكو ويتي دي سيرا محمد صلى الله عليه وسلم moko tan yónni ko muy ndawam ci nit ñëpp jox ko lislaam muy leetar bi gën a mat sëkk bi nga xam ne amatul yokk amatul wàññi lépp mat na mbokk ñu leen dénk baa di dénk suñu bopp topp yàlla ba ragal yàlla xam ne ragal yàlla rek mooy tax ab jaam bu liggéey mën a mucc te it moom rek mooy nattukaay bi nga xam ne mooy nattukaay bi wér bi tax nit gën inna akramakum inda allahi attaqaakum wa tazawwadu fa inna xayra zaadi taqwa bokk jullit yi yàlla subhaanahu wa taala dafa bind ay at bind ay bis bind ay weer muy fukk ak ñaar ci at mi mu defal jaam ñi ay xàmmekaay ci weer bi tàmbali demul tàmbali wut màndarga mu ñu tuddee alxilaal te maanaam mooy weer ñu xam ne weer yi nga xam ne moom lañuy ñuy sukkandiku bokk na ci jagley jullit yi ndax lu bari ci seeni jaamu ci lañ koy nattee lu mel ne koor lu mel ne tabaski lu mel ne aj lu mel ne waxtu yëpp ci lañ koy ci lañ koy nattee kon lu am solo la ci dunduk jullit yëpp mbokk yi ñu xam ne dugg nañ ci at mu bees muy atum gàddaay ga waaye di fàttalikuwaat ci at moomu xew-xew bu rëy xew-xew bu màgg bi gën a màgg ci lislaam muy bi nga xam ne ci la suñu borom gañeele lislaam daaneel kéefër yëkkati lislaam jëm kaw te du wàcc mukk ci la li ñuy wax état islamique taxawee te mooy doon islam ci Madina ndax biñ nekkee Makka ku ne xam na ne lislaam amatul booba état booba da doon boxtu rek waaye nag bu suñ borom ndigal la jógee ne ko demoon Madina ba mu demee ci lislaam ba faw xew-xew bu nag mooy gàddaay gi nga xam ne mooy Musaa salaam defoon ànd ko saxaaba yi dem Madina bokk jullit yi bi nga door a tàmbali fi nekkee ak bi mu fi jógee lépp daawuñu sukkandiku ci atum gàddaay gi dañ dal xol rek li gëna a ci at ma ñu ñu ci ko at moma lu melni amul fil ndax bu dëgg ñaa yéen sallam kañ la feñ ci aduna dañ nan feñ na feñ na ci aduna amul fil ndax booba dafa melni ne mom dafa gënon na siiw moy amul fil moy moy ay ñay ñu doon ko ci xex moo ci gënoon a siiw kon loolu mo dañ ci tuddee amul fil bi bakkan ñëw it ci lañ doon lañ wéy ba Omar ñëw ba am fi ñaari at jëm ñeenti at mo am bis mu yonne benn bataaxal ci benn benn gouverneur bi doon ci beneen dëkk ba mu demee lettre ba ñu def ci Chaabaan rek waaye xamul nag ban Chaabaan la bi ñu laaj ko ñu ne ah kon kat jot nañu wax ñu tànn at mu ñuy sukkandiku ndax ñu mën a xam dal ñuy jàpp lu muy tëddee bu daal ci ishaara euh, jullit yëpp am ñu wax nañ jàpp bi yonent bi ñëwee àdduna am ñu nañ jàpp bi yonent bi euh, demee ci boromam am ñenn nañ jàpp atum gàddaay gi ndax moo mooy xew-xew bi ëpp bi gën a siiw ci lislaam te ëpp ci njariñ te lislaam ci la doxee nekk lislaam ji mu nekk ba nëgë bañ ci juboo mu daal ci waxtaan ak Ousmane ak Ali ibn bi Talib ba ñoom ñëpp mu jubu leen ñoom lépp dina defal dañ ko daan diisoo ba déggoo ci ñu tànn ko muy tàmbalikaay atum jullit yi ñun nañ ko tàmb ñoo nekk fu ñu ko tàmbalee parce que yonent mi ngi may gàddaayoon ci rabiul awal la gàddaayoon ñu ne kat nañ jël muharram ndax muharram dafa bokk ci asulul xurum te li gën mooy mu tàmbale ci asulul xurum jeex ci at ci daax jeex ci saxarul xurum ndax at weer wi jàll dafa bokk ci at dafa bokk ci weer yooyu muy asulul xurum bii dafa bokk ci ñu ne nañ jàpp loolu ñu ne ba tey day ñëw ginnaaw aj te aj mooy xew bi nga xam ne ponk yi moo ci mujj kon muñ ci jógee rek li gën mooy ñu daal ci at mu bees boo ko defee ñu ne kon nañ tànn al muharram mu tàmbali atum jullit yi loolu mooy histoire jëfandikoo àlla asana hijriya bokk jullit yi ñu xam ne weer yi di muharram te ci tañ dugg ci nekk ci nii mooy bi tàmbali atum jullit ñi weeru màgg màgg la bokk ci weer gën ci yàlla bokk ci assurum ñu ko waxee woon léegi danañ sopp ku ko woor lépp waaye loolu nag sopp rek la waaye nag sunnal nañ ku woor li ñuy wax yow ma ashura mooy fukki fan ya te mooy tam xarit sopp nañ ko wor li ko waral moy yentou sallallahu alayhi wasallam moo ko sunnaal bi ci madina di fa bes do fekkon yahud ya fa nekkon daan fetu yow ashura mu laaj leen lu ko waral ñu nak bisbe ka dañ koy sante yalla kon sante yalla bi bokk jar rek fet ndax musa ci la ko borom jéggalé won ak yu bëree bëri adama ci lañ ko sun borom Euh, wàccee ci la ko jéggal moom tamit ci la musal Ibrahima ca sawara ak yu bëree bëree bëree bëri mu ne kat ñun ñoo leen gën a yey ci Moussa daal di koy woor daal di ne nañ ko woor daal di wax ne ku ko woor dana la kafaaral maanaam at mu weesu mi lañ ca defoon ci ay boo ko war dana la ko dana dana la ko kafaaraal daal di waxaat ne xaalifu fii al yahud na ngeen ci wuuteeg yahud yi nag mooy ngeen woor bis bu ko jiitu wala ngeen woor bi topp kon ku woor ashura li gën mooy nga boole ci bi ko jiitu wala bi topp mooy tax mu dëppoo ak sunna ndax ñu waxoon ndax dane woon kat reñ jii kat bu déwénee mu fekkee incha allah danaa woor benn bis bu ko jiitu wala waaye nag bon dogal fekkee watu kon loolu sunna la su su sax bu ñu xoolee li nga xam ne mooy tegtal la bis bi weeru weeru màgg la rek yu bëree bëri la waaye ñu jàpp ci rek ne yonent bi dafa wax ne woor ci weer wi bu dut weeru koor rek moo gën loolu kon tegtale ne weer wi kon weer wu màgg la ñaareel ba mooy lu jiitu koor di wàcc ci lislaam dafa mel ne dañ ne waajib la woon waaye bu ñëwee nag ba lislaam wàcc ci la nekk euh, sunna loolu tam ba léegi day tegtale ne weer yi ba tey weer wu am wu am solo la bi ci topp mooy weer woor euh, fukki fan bi muy yow maa soor tam xarit day kafaara sana kaamila loolu tamit day day tegtale ne weer wu am solo la bi ko ñeenteel mooy yonent bi da ko tuddee woon shahrullah te weer yëpp yàllaa ko moom waaye kon nag bu ñu ne shahrullah day taakiid rek ne weer wu am solo la kon ñeenti daal bu ñu ko xam ne weer weer wu am solo la. boo ko jullee kon lu mel nii bu ñëwee dana baax ñu fàttaliku rek ay dénkaan yoo xam ne yonent bàyyi woon na ko bu muy dénkaan yu bëree bëri. ndax dafa dénkoon jullit ne leen àdduna bu ngeen fi nekk da ngeen mel ni ku nekk ci na ngeen nekk eh, ay doxandeem ngeen fi doon wala ngeen nekk fi ko xam ne dafa jaar rek di jàll toxo fi rek noppalu ci ker dal waaye abir sabir mooy kuy dem rek ndax àdduna jaarukaay rek la waaye du saxawaay bu ngeen bàyyi xel danga tax ngeen gën a góorgóorlu baax ci jaamu yàlla gën a góorgóorlu baax a baax ci topp ndigal ak bàyyi ay tere waxaat ne eh, àdduna tekkiwut fa yàlla buñ ko peesoon ci balance laafu yoo moo ko gën a diis bu fekkoon ne adduna tekk na fa yàlla dara kon ku gëmul yàlla doo ci mos benn góox kon adduna tekkiwul dara moo xam ne lislaam dafa tàmbalee woon ci ak tumuranke te it nag ci la jamaat kon nag fa tuuba lil quraba mu ne kon nag texe ñeel na ña nar a tumuranke ndax lislaam ku ci nekk rek xamal ne da nga dem ba tumuranke ci loolu mu ne fa tuuba lil quraba kon alhamdulillah suñ tubaay it waxoon ne na ngeen yittewoo li nga xam ne bu ngeen faatoo mu leen di gunge des faak yéen te bàyyi li nga xam ne fi ngeen koy bàyyi wala bu leen gunge bu àgg ci àdduna moom day dëppaat bàyyi leen fa mu ne loolu mooy jëf ju baax ju baax na mu ne mooy imaan ak islaam ak ihsaan mu ne imaan nag mooy nga bañ a bokkaale yàlla dara loolu rek mooy mooy mooy tawxiid ndax loo mën a firi rek fa ngay delluwaat mooy bañ a bokkaale ak dara ndax yàlla dafa ne bàkkaar boobu du ko kenn bi topp mooy al eh, eh, islaam mu ne liñ la liñ la digal nga def ko na nga ko ba mu jeex tàkk yàlla di taw tëgul kenn lu mënul waaye nag danga dangay dem ba sa kàttan jeex ci su borom la dëgal nga di ko defee lu mu la tere nga di ko bàyyi waxaat nag lan mooy ihsaan mais nga ba a gëstu bi dee fi yow wéyal rek yow daal li la war bu ñu ko defee nga def ko ànd ñoom bu ñu ko bàyyee nga dem yow dong donte da nga wéet man nekk mel ni mu yow demal ngay def ko ni mu ko loolu mu ne loolu mooy ihsaan bokk ñu xam ne kon euh, at mi jeex na dugg nañ ci at mu bees di waaj bis boo xam ne mooy ashura bu am solo ci at mi muy tam xarit woor ko it di di sunna waaye tam xarit mbokk ñu bàyyi xel ne bis la boo xam ne dafa dafa dajale bànneex dajale naqar ndax ci lañ jéggaloon Moussa jéggal ci Adama ak yu mel noonu bëri waaye tamit nag ñu xam ne yooyu saa sallam ab sëtam Seydina Xuseen ci lañ ko rey rey bu ñaaw ci Karbala ci bis boobu lañ ko rey kon bis la boo xam ne wareesu koo feetu waaye nag diine dañoo won naka la ñu naqarloo mbir ndax sa yonent bi saa ba doomam Ibrahim nelawee dane wala naqulu illa ma yoddi rabb duñu wax mukk lu neexul yàlla waaye nak kat suñu xol fees na foofu la ci yem kon di ca di ko naqarlu bay def loo xam ne waroo koo def ba tey loolu tamit du diine ñaareel bii di ko feetu moom moom sax moo gën a ñaaw te dañoo tàmm fii Sénégal bu ñëwee ñu def li ñuy wax taajaboon li ci ndëkk nekk lu ñaaw sax mooy góor gu ñuul jigéen ak jigéen ju ñuul góor loolu yoonent da ko tere sa ñoom yàlla di leen rëbb kon képp ku am njaboot da nga leen bàyyiloo xel loolu xam ne suñu borom ne yàlla neen suñu borom rëbb na ku ñuul góor gu ñuul jigéen jigéen ju ñuul góor suñu borom rëbb na leen te loolu lañ gën a nemmeeku ci tam xarit ak tëgg ak fecc ak jaxasu góor jigéen kon yooyu yu mat a bàyyi xel la kilifa nañ ko bàyyi xel bu bu baax a baax a baax di waxit ne at mu jàll moom ku nekk war ngaa def taqyim maanaam évaluer xool jàll ba xam loo ci def ak loo ca bàyyi bu dee lu baax nga yokk ko bu dee lu bon nga tuub ko te fas yéene du ci delluwaat benn yoon kon ñoo ngi ndokkeel ñëpp ci at mi di leen ñaanal mu def muy atum jàmm at mu ànd xéewal mu xéewalinu njub xéewal leen topp sunu sunu moom sallallahu alayhi wa sallam xéewal leen topp Sëriñ Tuubaa ni mu ko bëggee woon ñoo ngi leen di siyaare bu baax a baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.